ne mooy magu délégation bi Adja Fatou fa tabarakallahu ne di leen nuyu ne di leen ziyaara ne ci bisu maam ci bisu baay ne di nuyu ne njabootu maam alxaaji Tidiane Niang borom yàlla itali ne sama baay la woon ne sama xarit la woon ne sama soppe la woon ne baay alxaaji Tidiane ne lu bari seqoon naa ko moom séq ko ne mu séqoon ko ak góor gi Alaaji Amat Sise ne boo duggee ci sama néeg bee ne maa ngi moom ne ci benn photo ne ca gàmmu puut ne loolu du tey yàgg na ne sëriñ bi ne lool njabootam fi teewe ne ñëw nañu ci seen kër ne Alxaaji Lamin ne ko demal pir ca gàmm ga tey moom sama yaram dafa diis dama bëgg nga dem ne pir boo demee toogal ca sama wetu doom ne ne mu ñëw ca ëllëg ne ca une ñu toog ba yàgg rek bàyyi laa tiijaan daal di agsi bi mu agsee ne ñun ñëpp ñu jóg mu ko papa dag ma won demal ci pir ne ci wetu sama dom serigne Maodo ah, ne ba nga daal di ñew mu ne ko waye lolu xamna ko ba ma la koy wax sama yaram diis waye gannaaw bi dama am lu ma gis lo xamne ne ma ni na ñew ci gamu gi ne li wax ne fekkee na ko fii ne booba ñoo ngi ca néeg bee ne kon bu ngeen fi teewee danañ leen gërëm danañ leen sant ne di nuyu nag alxaaji ma jóg ne suñu jarbaat suñu xarit lool suñu soppe lool ne suñu kóllëre lool ne mu xam bu baax ginnaaw bi ko juree ne cofeel gi mu am ci moom loolu lu ma xam la maa koy gërëm di ko sant di leen seedeel di leen seedeel ngi leen di taxawal mu ngi leen lépp loo xam ne ne ci lépp loo xam ne kër gi kër gi ñu ngi koy doxal ne fu mu dem fekk ko fa ne te bu fa demee lu fa war ne dina ko fa def am na yar am na yar am na teggin am na sutura ne kon fa nga bëgg a yegg xaj ma jóg yàlla nga fa àgg wax leen amin mais xol sedd na ne ñu ngi lay gërëm ne di la sant bu baax ne madame la maire nag ah, ne ah bëgg ngaa nekk maire allah ne yàlla dina ko def wax leen amin ne yàlla dina ko def allah ñu ngi lay ñaanal lépp loo ci bëgg yàlla la ko defal nee kër gi nag seen kër loo fi bëgg loo fi bëgg dagaan ko fi yàlla dina la ko may ngeen ñëw fekk fi sama doom Serigne Modou Dia eh, ne bërki démb rek la fi mujj ànd ak délégation bu mag ay kilifa yu bari eh, wax na ma sax léegi ñenn ñi ñoo ngi ñëwaat nii ci yoon wi ne muy sama doom ne muy sama xarit waajuram ne fii la daan toog ci gàmmu gi ne li ma amoon ci moom ne kenn amu ko woon ne bisam bee mu daan def ca meewaan su ma fa ñëwee daanaka tant ba maa koy waxtaane ne moom jeex taag ne fa tabaarakallahu ne kon sama xarit ne kon sama soppe bëggoon ma lool yéene ma lu nekk nag ne kon bu ñëwee toog ñoo ngi koy gërëm di ko sant di ñaan soo borom ne moom it yàlla ko yàlla jàppale ne yàlla def la ngay mag yéene ju nga am rawatina ne ci sama jëmm xam naa lépp yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay ne suñu xol sedd na fa tabaarakallah ne di gërëm suñu goro bi ne moom nag ne daf ko mayoon soxna ba ma ko ne man ku may may soxna sept jours sept jours une semaine une semaine avant gàmm avant gàmm une semaine après gàmm après gàmm waaye moom daal waaye moom daal wéyal na loolu wéyal na loolu sant naa ko sant naa ko gërëm naa ko gërëm naa na ne soxna si ñëw na fan yii yëpp ne moo nekk ci liggéeyam bi moom soxnaam ne moom soxnaam ne sama la ne daf maa gañe nag ne daal di koy jël waaye ah. merewuma ko ne merewuma ko ndax ndax toppatoo na ko toppatoo na ko fonk na ko fonk na ko jàppale na ko jàppale na ko fa tabarakallahu semaine bi yëpp ne semaine bi yëpp ne mu ngi fi am naa néeg yoo xam ne gis am naa néeg yoo xam ne bari na dëkk ci kër gi bari dëkk ci kër gi musuñu faa dugg waaye soxnaam waaye soxnaam moom rek laa fa moom rek laa fay yabal fa tabarakallahu nee di ñaanal Mansour itam. nee moom itam ñu ngi koy ñaanal. jërë ngeen jëf. Adja Faat jërëjëf. yal na yàlla yàggal taxawaay bi. waaw.